mais li ma bëgg a wax mooy awma rien de personnel contre Ahmed yàlla xam na ko waaye nag mairie lay gérer suñu mairie. ah waaw donc il faut que il faut ñu am droit de regard. citoyen nga. waaye daal li ma jaaxal mooy dëkk ba léegi salte na lool. fan géejawaay. waaw géejawaay salte na lool. Euh, li ma jaaxal tamit mooy école yi parents d'élèves yi professeurs yi élèves yi ñu ngi jooy ndax lañ leen tàmmaloon di leen jàppale dans l'éducation vraiment dafa dafa dafa dafa dakk wala dafa wàññeeku bu baax a baax a baax li ma jaaxal tamit mooy des acteurs comme les imams les délégués de quartier et d'autres acteurs socio-économiques fu mu nekk nii ils sont laissés en rade donc euh, daal mandat bi soreegul lool waaye na mu commencé daal taxu ko taxu ko neex euh, te nag ñun en tant que acteur aussi il faut que ñuy prononcer wu ci loolu non seulement pour déstabiliser ko loolu sax mun nañ xalaat affaire politique parce que de toutes les façons il a un mandat de cinq ans foog mu jeexal mandat am waaye nag il faut que ñu def ko pression bi nécessaire pour que mu góorgóorlu xaw a redresser parce que c'est le sort aussi des mais a un mandat de cinq ans euh, que bu amul bilan euh, réélection dina dina dina dina dina metti li ma gëm mooy Ahmed fu mu nekk nii bu ñu wàññi woon mandat am sax mu jël. <laughs> yaa ngi tooñ Ahmed de. <laughs> dafa doyal moom ci tooñ ma la dëkk kay. <laughs> dafa doyal. Ahmed doyal na sëkk. Ahmed doyal na sëkk. ci biir woo la neexee sax nga woo ko en direct moom wax dëgg yàlla doy doyal naa sëkk. sëkk ci mairie Guédiawaye parce que affaire bi day koy séen rek nga defee ne euh, lu nekk ngi ci biir. dëgg la am na renommée parce que maire de la ville de Guédiawaye comme ni mu koy waxee. du lu ndaw député maire en plus ba pare comme ni mu koy waxee daane rakku président <laughs> loolu itam du lu ndaw waaye rek bu loolu rombee nga war a ñëw jàkkaarloo nag ak liggéey bi d'abord du point de vue administratif c'est un grand défi parce que sunu mairie du toujours la ñuy am les ressources euh, humaines nécessaires pour téye l'administration loolu rek défi la bu mag boo xam c'est pas évident man mairie bi dafa ma doon jëlal temps bu bëri di point de vue administratif euh, normal loolu aussi mooy sama profession Euh, mais nit ñi dañu ma doon jëlal temps bu bëri parce que il faut ngay wax ak les acteurs tout le temps mais tamit recherche ay ressources dafa ma doon jëlal temps bu bëri donc loolu yëpp nag du da ngay yow rek euh, mën koo def wala même boo ko jéemee nga am ci réussite en tout cas maa ngi koy ñaanal bu baax parce que c'est il, euh, de notre intérêt. mais mais xam nga.